sëtu Birame ak Dera Ngane a toll day bàyyi bañ mat fukk mu boole juma. na góor mosu booyam ah. koo topp ba xam ko. Eh, déedéet déedéet dégg ma ah. li ma gën a métti mu ne dafa bokk ci Dogo Fall ak Mawa Dior ah. Kumba Samba yaay Joloor foofu Dogo Fall ak sa Dogo Fall ak Mawa Dior Kumba Samba yaay Joloor Maguette Ndiaye Maguette Gueye xaali Ali Maguette Gueye xaali Càkk ak Massamba yaa ngi dégg surtout ngooñ ba ñii de moom nee na maamam ku ko mës a tooñ day bàyyi ba mat fukk man sama maam da koy tooñ léegi mu duma léegi. xale bi nga xam ne maamam bu ko kenn mës a am a tooñ day bàyyi bañ mat fukk mu boole juma. góor mu su bu mës a am waxam ndeysaan di nga ko defaraat. boo ko defarul lu noq ba nga dugg te te te dafa dogal la muy agressif agressif yëpp baa ko sama maam ndax ba jolof ma ree naan moo bënn teen ba ca jolof waa jolof di ca naan ba réew mi yëpp naan borom gille te sa njaay bu kaara bii nga sangu leen nguule nguule laa xam nga nguule nguule dafa borom réew mi ngaari ngaari la Macky Sall ngaari waaw Alfuri nguule nguule man la Demba Daaro Daaw Ngoñ ma ni moo dama ni sama maam Ngoñ seen maam da daan wayaan seen maam bu seen maam mësaana wayaan ba ñëw sama maam ngooñ day da leen nangu lan wayaan biir na Serigne Touba ñi may wax xam nañ ba pare ma ni ma Daaro daaw ngooñ ma Semba Demba leen taxul téewee laalu ci nomba te kollegaa di ndar jéem ma ko aw sët baa ngi nii dama ni ko Alboury bu jëlee avance bi dinaa tàppalaa pipi man wax mbiw <laughs> dégg nga loolu. macha <laughs> allah. mais dama ne ji foo jëm. yow ka lay waaj. ah Alboury ngi nii daal toog su ma jugee fii xam naa suñu kër laa jëm. ñibbi damay ne nii combat la su woon mais aw ma. aw ma combat mënu ma. non a am. di ne nii barki Seydina Mohamed man maa saf am combat. xam nga des fois tuxkat yi ni ñuy signé. toog ba si yàgg nam mu si yeret tux ba sa me ba man loolu laa bëgg. am loolu laa nam Pero nag nag ito ko, why? Meron ba yun? Meron ba? Oh, may! Oo. Eh, jeex na, jeex na, jeex na. Jël ko rek. Masha Allah, eh, eh. Eh, jeex na, jeex na, jeex na. Jeex na waay. lan lan lan waxal lan. mani man la Demba Daaro daaw ngooñ. maa sàmm Demba leen. ngooñ taxul téere laa la tudd lomba. takkoolu gaa di jar dem. attention. da koo tëkk mu def lan. ma ne bu may dóor. yow moom li def. na ñëw fii ci digg géew bi ñu def ko fi man la Demba Daaro daaw ngooñ maa sàmm Demba leen. ngooñ taxul téere laa la tudd lomba koolu gaa di jar dem. ngooñ du way du te ku way ku ku wayaan mu dab la nangu. nangu li nga moom maamam. Ah. na bàyyi Alboury Ndiaye sama maam. te bu bàyyi da faaleeg maa wa jor su ko bàyyiwul bu ko bàyyiwul. dinaa tàppala. Ah. pipi. Ah. ma la wax mbiw. kon taxul téere laa la tudd ndomba xool nga di dem. ngoon du way du wayaan te ku wayaan mu dab la